mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara ginnaaw ba ñu jullee ci ginnaaw ba ñu sant yàlla di julli ci yoonant bi sallallahu alayhi wa sallam di ci kàddu te tuuti ci lool te wóor na ma ne kenn ku nekk ci ñi fi teew bu ñëwoon tey jii def lu ëpp li ma def kon tuuti naa ci waaye nag gëm naa ne leeru ki ngeen may waxtaan loolu su ma gunge rek dina mën a wax ak yéen ndax lii nag mooy luy defar mbir wax naa ko léegi sàll dama leen ne gis nga yar rek mooy yàq mbir mbir moo gis moo yàq yar ko yàq mooy dugal ko ci bokkut ak génne ko ci bokk te sëriñ Touba ni mu liggéeyee ndax bala ñu waxtaan ni Serigne Afe ak ki ko nampal ak fi mu ko nampe il faut loolu gis un la boo xam laa yëtu géser ndax Sëriñ Tuubaa dafa noppi ci ñëpp ndax kenn ku nekk def na ci yow loo xam ne ba nga ba mu jëflanteeg yow ba noppi jëflanteeg moom ba noppi jëflante naa yow ci jëflante boo xam ne ba muy jëflanteeg yow ku doon wax amin sax niwu mu mel ni kenn ku ne ba muy def ci yow sax la muy def ci yow ba mu koy def ci yow man maam sax yaa ngay xaram kon Serigne tubaa liy firndeel ne ba tey liggéeyam loo xam ne lu mat a bàyyi xel ci mbir mi mooy su ma di ko wax mboolem kàngam yi ko encadré woon kenn ku nekk war nañoo taalif ci yow wan sa jeex wane sa jeexit ak yaay kan. def leen na saaba yi ndax yo saaba yi ñoo feeñal ji liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mënoo wacc mënoo waxtaane yonent bi boo doon te tuddoo saaba yi ndax boo doon wax badal oxot mbooleem ñu àndoon ak yonent bi kenn tey bët bu set saa yoo ubbee téere bi rek gis saaba boo xëyee mosoo ko dégg daanaka te loolu day wane day wane mission yonent bi sallallahu alayhi te ku ne xam na ne sëriñ Touba du benn kaas képp kott dong kenn ne ko deng naan di xool say morom loolu mënta ne lépp ma kawe Serigne tubaa lépp ma kawe xam nga fu ma ko teg ko bu ngeen ko xoolee ci def ci euh, ci liggéeykati aar yi képp liy tegtale ne liggéeykatu aar mën na li muy def lu liggéey lu ne rek da nga cay gisul ràññeeku mu mel ne. beneen ba sax da koy fàtte te léppay ràññee kon day wane ne liggéeyub Sëñ Tuubaa amut lu suufe lépp kawe yaa xamul lépp jëm kaw mën mhm. ngaa bañ a xam nag fa mën ngaa mën ngaa xam kii uppale ka ca des rek mhm. waaye ñëpp jëm kaw mhm. su ko defee nag mu mel ni kenn koo ci waxtaane bu ñu lay diglu gàtteem xel sax day jàpp ne kat kii moo yor lépp te fekk déedéet Sëriñ Tuubaa rek moom moom moom moo demee noonu ci ci liggéeyam moo demee noonu ndax lii mu yor keneen ku ko yoroon kudut moom li nga yor lépp boo wut say doom nga ko jox ñi te topp seen ginnaaw kon ah, moom rek mu mën a doon Sëriñ Tuubaa te it la ko bëggee léegi nag comme yàlla dafa dogal waxtaan bi dafa xaw a gàtt te ñuy taxañ rek ma am ab ñamali bu ma leen di defal ci sëñaafe rek Ah, waaw maanaam li liñ naan maa la yudraku julluhu la yudraku kulluhu kon xullun la minal kusri lu tuuti la lu bàyyi ko ci lu bari ndax ci ku tedd ki waaw waaw maam Cheikh Afra tey nag dañuy def bañuy bañuy def xaarijul mawdu mooy hors sujet déedéet ndax keneen ku ma ko boor tax taxaw taxawaayam tey di wax da nga yaakaar ne moom dong la kenn ku ne am nga xusuus yàlla maam Cheikh Afra tey moom tey moom moom moom moom géew bi mu nekkoon Cheikh Lagga moo xëy ci biir géew bi. waaw waaw. ah naa xam de. li ma ci bëgg njëkk leer tim doy daanaka sëkk bind mhm. kenn ku ne am na lool la waaye Sëñ Aka dafa am lu kenn ëpp moom tam mhm. ku dul Sëñ da ngaa gënee feneen adduna ñëw ci sëñ Tuubaa mu yar la mbaa nga gënee adduna ci sëriñ Tuubaa dem feneen ñu yar la mbaa nga gënee fi sëñ Tuubaa adduna mu yar la eh, eh, nga nga màgge fi moom waaye màggate woo fi moom nag waaye sëriñ sëriñ Afe képp xot dong moo gënee adduna ci sëriñ Tuubaa sëñ Tuubaa yaral ko boppam mu màgg fi Serigne tubaa ba màggati fi Serigne Touba. jëf ñaareel ba. Hmm. yàlla aar na ko ci doo gis mukk koy kayti kayti di ko tuddoo. loolu yàlla musal na ko ki nga xayante ni bii nag la Serigne Touba taxoo woon ak moom te mësta teqali koog moom. Hmm. ku dul Serigne Touba ku dul Sëñ Afe am nay jamono yoo xam ne yaa ak Serigne bi leetara daal dox seen diggante. Hmm. kon nag moom taxoo googu mu taxoon ak Serigne Touba. ah lii question bi loolu ko a mbir la. ci loolu nag ci li ñuy junj tuuti kéemaan yi suñu dama koy bàyyi fee. ndax kemaan di su ko roy. bu ma leen newoon tey kéemaan yi Serigne Touba kéemaan yi Serigne bi ci géej gi ku ko mën a roy. kéemaan di su ko te am nañu flagrant tamit yoo xam ne daanaka du ma ci jaar. Mm-hmm. ndax ku toll ni Serigne mm-hmm. di rek Serigne Touba bi rëkk ci moom. Mm-hmm. nga xam ne moom képp moom mas ne sami allahu liman xam ne sëñ Tuubaa ne rabbana wa lakal hamd mhm. te loolu lépp daan ci indi ay preuve xam mhm. la mu faarakatina mhm. ndax réew mi dañoo nekk ci réewum firi looy wax da koy firi ñu ne tegal dara ci taabal ndax lu ko mooy dañ naan sët bi waxtaan ci maamam su ko defee ànd gi mu àndoon ak moom moom sëñaar mësta mësoo dégg ñu ne maamam a ko yàq Mm-hmm. nekkul mës ta nekk kër maamam mm-hmm. mës ta nekk kër nijaayam mm-hmm. mës ta nekk kër bàjjanam mës ta nekk kër bàyyi benn taxam ci Serigne Touba la mas a ne depuis ca ba mu nekkee Mbakke Kajoor bi fi Mamour Anta ji jóge booba baax nag daañ mën nañu seen fukki at làmba fukki at ak benn te ku ne xam ne ne Serigne Touba wajur bu baax ba Mamour dénkoon na Serigne Touba njaboot gii ne leen yaara li ma war a def ci ñoom ci xam-xam des na li ma war a def ci ñoom ci yar des na ma bëgg nga taxaw ma ci sëriñ Touba gàdd ko mu dénk ko jëmmi boppam ji Serigne Touba gàdd ko mu ne ko damaa bëgg bu ma fi jógee deqale mu Serigne Touba gàdd ko moo tax damay wax ne Serigne Touba ñeme gi mu ñeme responsabilité jar naa ak moom dafa ña dafa ñeme ñoo ko. moo tax sëñaa fi suñ tubaab yi gën daanam di ko yàgg ma ko yaakaar naa suñu wajur woon bu jamono bu ñëwaatoon jamono yéen ñëpp mën na leen di tuddi sëñaa fi ne man tuddi naa la sa wàll ndax Mbàkke Kajoor boobu ba fa Sëriñ Tuubaa di jóge di ñëw Mbàkke Bawol sëñaa fi laa dalal ak Soxna Anta Njaay ba mu jógee ba sanc Daaru Salaam sëñ mook sëñaa fi ba mu fa jógee bay sanc Touba bari na lu daal ànd ak sa ñaari ci wër boobu mu daan wër bañ di ko wëri ndax loolu dégg naa fii ci njaboot bi sëñ Karam nettali na ko ne sëriñ Afi am na benn bis mooy ànd ak moom di doxal ko foofu ci pays bi mu ne ko fii de boo gisee barab bi ma miin ko day barab boo xam ne sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba ma sunu mag bu baax ja bu ma saan doxantu doxantoo boobu toxal doxantoom boobu léeg-léeg man mii la daan àndal ba bi muy wër Tuubaa kero ba mu koy gis man mii la àndal mu ne mu ànd ak man ba ci bit bi mu ne ma toogal fii xaar ma Sëriñ Tuubaa duggal boppam ci àll bi ne medd ba yàgg mu génnaat ñëw bi mu ñëwee di muñ mu metti ak mbitti di wax ne dafa am haatif bu ko wax ne ko la nga doon wër ma nga fa nga bàyyi sa nguur sëñaa sëñaa fe nee na keroo Sëriñ Tuubaa tant bu ne def na